1970 tàmbali kook ci atum 2000 gis nañ yéen i kaay ñi nga xam ne kat ñooy liggéey ci wàllum këyit wala ci wàllum rajo wala ñi nga xam ñooy liggéey ci wàllum télévision ñoo am nañu place bu am doole ci li nga xam ne daal mooy doxalin xibaar a bi yëkkati fii taf fële ak li nga xam ne mooy bii waaye tam mu gën a wér lool waaye tam fexe ba joxe ay xibaar ci wér te wóor waaye tam looloo tax rek ñi nga xam ñooy yéene yi ñoom ñu nekk daal rôle essentiel ci nga xam ne mooy information tukkee ci état bi wala ay acteurs politiques wala société civile kon nag li nga xam ne daal mooy euh, jumtukaay yu xarale yi ñoom daanaka seen sóobu ci li nga xam daal mooy liggéeyam yéene kaay lii tax na rek ba jamono soppeeku jaww jaarale ko ci wàllum ordinateur ak li nga xam ne mooy wàllum portable ak wàllum lënd gi de internet kon nag dañuy assister bu baax a baax ay at rek ay soppi yi nga xam ne daal daanaka sax amul benn explication ak jumtukaay yi nga xam ne mooy liggéey ci wàllum jokkalante ak tam coppite yi nga xam daal am na ci lëkkaloo bi nga xam ne moo dox ci diggante yéenekaay yi ak wàllum espace public kon tam réseaux sociaux yi lee tax na daal mu daal di am benn doxalin bu bees rawatina ci nga xam ne daal ñooy rek wàllum seet maanaam wàllum Google Apple Facebook wala sax Twitter ngir loolee daal ñu mën cee yem kon réseaux sociaux yi nekk na daal wàlluma bouleversement bu nga xam ne daal maanaam jamono daal di wëlbatiku fexe ba li nga xam ne mooy nguur yi acteur politique ak liggéey ci wàllu opinion publique ñoom ñëpp tamit daal di fexe ba méngoog jamono kon tan jeexital gu bon bi nga xam ne am na ko ci wàllum communication di jokkalante ci àdduna yëpp loolee ponkal na ponkal moo nga xam ne foo ko natt weesu na ko kon nag am na ci ay jafe-jafe nga xam ne ci wàllum yéenekaay wala ci wàllum jokkalante day tax rek ne daal am jafe kat am na ci ñi nga xam ne seen liggéey naam sax ci wàllum joxe xibaar la ak ñi nga xam ne daanaka seen liggéey bokku ca kon lëkkaloo bi dox ci diggante opinion publique ak média traditionnel yi nekk daal lu nga xam ne am na solo waaye tamit kenn mun leen taqale waaye tamit ci contexte bi nga xam ne daal gis na ne ci ya anam ya askan wi liggéey maanaam yéenekaay yi indi ay coppite yi nga xam ne daal tax na ba climat de crise bi am ci wàllum orientation kon nag fexe na ba li nga xam ne daal wàllu manipulation ci xibaar yu ñu joxe ak opinion bi nga xam ne sax wala wàllum xar kanamam waaye nag wàllum journalisme moom maanaam liggéey tase xibaar dafa mel ni kat dafa faatu ci même réew naam sax narmeewul waaye tam ma ngi cay dem nank-nank kenn mënta contrôler xibaar yi nga xam ne mooy jaarale ci jumtukaay yu xarala yi askan wi daanaka ñoom dañuy occupé wu rek ci réseaux sociaux yi kon ñi nga xam ne ñooy yéenekaay kat war nañoo xalaat seen liggéey kon situation bi nga xam ne kaw am na ci kon yaankaar naa ni kat wàlluma manipulation ci wàllum xibaar loole daanaka sax sabab la ci ci kon wàllum saaga ak ñi nga xam ne ñooy autorité politique yu ñu attaqué ak ñi xam ñooy kilifa diine yi daanaka lu leen rek yàq mel ni melengaan loolu daal ëpp na kon crise bi nga xam ne daanaka sax liñ duppee ay nouveau média ñoo ko daal di ah, indi loole kat des na ci sampalaaj kon ndax ma mu des na fexe ba li nga xam ne daal moom lañ jàngaloon tase xibaar yi di éthique ak déontologie loole kat mën nañ cee delluwaat waaye tamit dara wóoru ci.